ñu ngi waratay tàmbale ci faridatu zakat wa wujubiha faratay azaga ak wareefu azaga maanaam war gi mu war ci kaw jullit bu am nisaab ak an ñaareel bunt bi mooy an nahyu an tarki yi tere gi yàlla tere ah, wëlis ñi nga xam ne dañuy bàyyi joxe azaga te ñu am ko te mën ko qaala tabaraka wa yàlla mu kawe mu tedd bi nee na wa aqimu salaata yéen julli ñi taxawal leen julli waatu zakaata te ngeen joxe azaka xam nga li gën a doy waar ci alquran foo déggee yàlla ne aqimu salaata rek waatu zakaata la ci teg fu ngeen jullee rek joxe azaka la ciy teg waaye di julli doo joxe azaka te yor ko te mën ko loolu musiba gënu kaare yi a atiu rasula na ngeen topp yonent bi lu mu indi laallakum turhamun ndax ngeen texe summa sooruf nuur la ko wax moom yàlla wa qaala taala yàlla nee na it xuus min amwalihim yow yonent bi na nga jàpp ci seen alal yi sadaqatan Eh, sarax tudahiruhum nga setale leen ci loola watu zakkihim nga sellale leen bihaa ci loola loolu mooy lan maanaam bu ci génnee ci seen alal yooyu sarax ñoom ñoo ci setee ci wàllu bakkaar su génnee ci alal bi saraxee ci ba tey ñoom eh, alal gi lay yàlla di setal ba du yàqu mu ngoog kon am xuz min amwalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha suuru taw la loxo wax wa qaala taala yàlla waxaat na ci alxuraan ne fa lazina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla minkum ci yéen wa anfaqu te ñuy joxe seen alal ñoon de lahum ñeena la ajurun kabirun pay bu rëy fa yàlla kooku suuratu hadiid la ko wax wa wa sallam yonent bi nee na buniyal islaamu ala xamsin lislaam bi day dañ ko tabax si juróomi ponk bi si jiitu mooy shahaadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mooy seede ne amul ku ñuy jaam lu yàlla Euh, yonent bi jaamam la ak yonentam la ñaareelu mooy wa qaama salaa taxawal julli ñetteel mooy wa isaatu zakar joxe asaka ñeenteel mooy wa sawma ramadan woor weeru koor juróom moom mooy wa hajjul bayti man istadaa ilay sabilan mooy aji néegu yàlla bi te attan te mën fa dem bay àgg euh, ñaareelu bunti mooy an nahyu an tarki mooy tere gi ñuy tere bañ a joxe asaka qaala tabaraka wa yàlla mu kawe mu tedd mi nee na wallazina yaknizuuna zahaba ñi nga xam ne te dañooy ndambu seeni i alal maanaam eh, seeni i or wala fiddat ak seen xaalis maanaam dañ koy jël rek di koy def ci ay compte eh, duñ ci joxe asaga te wala yunfiquunaha duñ ci joxe fi sabila ci yoonu yàlla yoonu yàlla mooy duñ ci joxe asaga duñ ci dundale duñ ci maye duñ ci saraxe ñooñu day fa bashirhum xabaar leen wan leen ne day bi azabin alimi mbugal bu metti mu ngi leen di xaar ëllëg yowma qiyaam bés la yow ma boo xam ne yuxma dañ leen di lakk Euh, fi naari jahannama ci safara jahannama ak alal ya fa tukwaa biha ñu jël alal yi di koy ñaas jibaaxuhum ci seen jéeyi wa junuubum ak seen wet yi wa wuhurum ak seen digg gannaaw yi ci la jël alal bi defaat ko weñ bu tàng jër ñaas ko seen kanam yi ñaas ko seen wet yi ñaas ko seen digg yi bu ko defee malaaka ne leen haza ma kanasum lii ngeen gis mbugal yi ñu koy ñaas seen kanam ak seen digg ak seen i wet li anfusikum lii ngeen dencaloon seen bopp kon alal baango kon fa zuuqu mos leen mbugal yi maa kuntum taknizuuna lii day mooy li ngeen doon denc seen alal te du ngeen ci saraxe du ngeen ci joxe asaga allahu akbar yal nañ si almusal sooru tawba wa qaala taala yàlla waxaan na ci alquran wa waylun lil mushrikin safara ñeel na ñi nga xam ñooy bokkaale yàlla mooy alladina laa yuutana zakata mooy ñi nga xamante ne bi du ñuy joxe asaga kon déggal baat bi yàlla defa ni safara ñeel na ñuy ñuy bokkaale yàlla waaye allazina laa yutuuna zaka mooy ñu dul joxe azaga kon ku dul joxe azaga da ngay bokkaale yàlla yal nañ si yàlla musal ah, sóoratu Fussilat la ko wax wa qaala taala yàlla waxaat na ci alxuraan wala taxsi wala yaxsibanna allazina yabxaluun bu mu yaakaar ne mukk ñi nga xam ne dañuy nay ci seen alal bi ma aataahumullah ci li leen yàlla jox ci wàllu alal min fadlihi ci ngëneelam gis nga yàlla moo la ko jox ci ngënee lam waaye ñenn ñi dañuy yaakaar ne seen liggéey la wala seen ñaanu ndey la wala yooyu déedéet yàlla moo la ko jox min fadlihi ci ngënee lam da ngeen di yàlla nee na da di yaakaar ne loolu ma leen jox ngeen ci ma jox leen ko ci sama ngëneel ngeen ci nay ngeen huwa xayrun lahum ngeen yaakaar ne loolu lu baax si yéen la déet bal déet li fi ne huwa sharrun li ngeen di nay noonu lu bon ci yéen la ndax su sa taw sa yu tawaquuna maa baxiloo bihi yawma qiyaamati alal googu lañuy jël ëllëg def ko comme jaan laas ko seen baat yi ñu leen ci mbugalee ëllëg yawma qiyaam suuratu Ali Imran la ko yàlla wax yéen yàlla musal ci loolu day mbokk yi na ngeen joxe na ngeen dundale mimma razaqnaahum ci li ma leen wërsëgal min qabli lu jiitu an yaati ahadukumul mawtu lu jiitu dee di ñëw kenn ci yéen ndax su la yàlla joxe alal te doo ci saraxe doo ci joxe asaga doo ci doo ci saraxe doo ci maye booy dee danga nga naan fa yaqulu lay wax ne rabbi sama borom law laa axartani ilaa ajalin qarib lu tee woon nga yéexee ma tuuti ba digg bu jege bu ko defee fa asaddaga ma saraxe kon waakun mina saalihin ma nekk bokk si ñu baax ñi yàlla ne ah déedéet ah loolu wees na wala yu axira allahu nafsan man yàlla du ma yéexalee benn bakkan isa jaa ajaluha su fekkee digam jot na ah ku nar a dee day dee rek wallaay ndeysaan wallaahu yàlla xabiirun ku dañ kumpa la bi maa mu taamaloon ci li ngeen di jëf lépp lu ngeen di jëf ci lu baax lu bon yàlla nee na man deñ naa ci kumpa xam naa lépp dara réeruma ci sóoratu munaafiq la ko waxee moom yàlla zakaatin wa hajjun loolu nag mooy ñi nga xam ne du ñu joxe asaka du ñu dem aji te mën ko te yor ko waan abi hurayrata radiallahu anhu jëlee nañ ci abi hurayrata yal na yàlla gërëm ko qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi nee na awalu salaasi yadxuluuna al janna nee njël njëlbeenu ñett ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg safara ëllëg yawmal am mooy amirun musallatun buur wala président boo xam ne bu tar la ci euh, population tar ci ñoom lool du leen yërëm du leen dimbale du leen jàppale kooku mooy bokk na ci ñi njëkk dugg safar ak wazu sarwatin min maalin laa yu addi xaq allahi taala min maalihi ak borom alal boo xam ne du joxe ak yàlla ci alalam boobu maanaam du ci saraxe du ci joxe asaga du ci maye ak fa wa faqirun faxurun ak ku ñàkk koo xamante ni dafa bëri tiitar lool bëri solo lool yow nga ñàkk ba pare di bëri tiitar bëri nee na ñett ñi ñoo njëkk dugg safar ëllëg yoma xiyam rawahu ahmad euh, ibnu xuzaymata wa ibnu hibbaan fi sahihima waan an abi hurayrata radiallahu anhu ani nabi salaa sallam jëlee nañ si abi hurayrata mu jëlee si yonent salaa sallam qaala nee na maatallahu maalan képp ku yàlla jox alal falam yu addi zakatahu te joxewul asakay alal boobu mu sela lahu yowma qiyaama shujaan aqraw lahu zabiba dañ koy melalal alal alal bi yowma qiyaama dañ koy jël alal bi ah, defaat ko comme jaan jaan bu rëy boo xamante ne bi day jàpp ñaari lamiñ ah, lamiñ bi daal di ŋaa gémmiñ gi yaatal ko ba mu yaatu daal di laxasu ci baat bi su ma yaaxuzu bi bi lahzamatihi ah jaan bi jàpp gémmiñ gi yaatal ko ba ŋaam yi ubbeeku su ma yaquulu ana kanzu ko su ko defee mu ne ko man maa doon sa alal bi nga xamante ne bi moom nga amee woon ci àdduna ana kanzu ko man maa doon sa maalu sa alal bi maalu ko ana kanzu ko man maa doon sa ndàmb ya mooy alal boo jël di koy denc ci compte yeeg yooyu sumata ganaa ko yonent bi daal di tari aaya bi mu ne walaa yaxsibanna allazina yabxaluuna bi ma aataahumullah min fadli huwa xayrun lahum kon la nga ciy déggee aaya bi waxoon nañ ko léegi mooy walaa yaxsibanna allazina yabxalu bi ma aataahumullah min fadlihi bu mu yaakaar ne mukk ñi nga xam ne yàlla def leen a jox alal ci ngëneelam moom yàlla moo la ko jox parce que mënoon na ko jox keneen waaye yow la ko jox waaye nga yaakaar ne huwa xayrun lahum ñoom dañuy yaakaar lu baax si ñoom la ah déedéet bal huwa charrun lahum ndax loolu bon si ñoom la ëllëg yawmal xiyaamati sa yutawwaquuna maa baxilu bihi yawmal qiyaamati alal boobu yàlla leen dama koy defaat comme jaan laxas ko seen baat yi ah, ndax liñ doon nay bii ci moom yawmal qiyaama bés pénc yal nañ ci yàlla boole musal axrajahu buxaari wa muslim wa tirmisi wa nasaay ñoo génne hadis boobu kon bu suba jàmm incha allah ñu ñëw ci faridatu sawmi ramadan faratay weeru ko yal nañ yàlla defal dégg topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.